c'est mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye dal leen ak jàmm ma jukkil leen li gën a fës ci bopp xibaar yi eh, seen xool nag tooy lool nag ndongo yi nga xam ne ñoo fayte eh, ci jàng arab bi nag gannaaw nag ba ñu tàmbalee démb bac général nag ca foofu li nga xamante ne bii moo di ca centre examen 1506 ca nouveau lycée bu Kaolack nag te président jury ba daal di dàq ndongo yooyu lee nangu seen i ay téléphone xañ leen nag bagu atum ren jile daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne résultat yu baax nag moo daal di tukkee nag ci bac technique ci nag lycée Alaaji Abdoulaye Niass ci diwaan bu Kaolack tax nag ba ñi nga xamante ne bii ñoo di kuréel bi ëmb nag waajuru ndongo yi daal di cay am mbégte lool daañu ca dégg soxna Ngoone Ndiaye préfet bu Kaolack nag amaloon doxub nemmeeku nag ci ni mu koy defee waxtu bu examen amee rek ci bac général bi ni nag saytu ji xool ji nag ndongo yi seen i ay toogaay ak nag ci centre de examen yi nañu fa daal nekkee daañu ca dikk ci biir xibaar yi buñ ca noppee daañu ca toftal xibaaru biti réew ak Alioune Badara Diop tàggat yaram ak Serigne Moussa Kane ndar keppale li ci yéene kaay yeeg Seydina Omar Cissé mbokk yile bokk ci li fi ci ay xibaar ngeen taaxee lu tuuti ma dugg ak yéen ci yàttal wekk faram fàccee bi gannaaw bàkk bi lay doon. xibaar yi ak Mariama bakk ba jib naa ba noppi Alfayda FM kaddu gi di bàyyi bàyyikoo ci dëkk bu sell bii di Medina bàyyi eh, juróom-ñeent fukk yu taftal benn ngeen koy teewloo ci diwaan bu Kaolack nangaan Sénégal ak li ko wër eh, tey nag di àllarba nag ñetti fan ci weerum juillet atum ñaar junne ñaar fukk ak ñeent njàppalu koddu sekk keneme la ñu seen ci machine bi na ma ko junjee woon ca bopp ba noonu laay duggee ci yàttal wi ak faram fàcce bi eh, ci tàmbali nag bac général ni ngi démb nag ca centre d'examen nouveau lycée bu Kaolack nag yenn ci ay ndongo nag seen lim takk lool ñu fay téye nag ci jàngum arab bi eh, seeni xool tooy nag ñu métti lu la ñu fa daal di dund gannaaw nag ba ñu fekkee ay téléphone portable ci seen saak ba noppi nag daal di leen du dàq ki nga xam ne nag moo di président jury ba moo def lu ñu mel bac ca nouveau lycée bu Kaolack ak Cheikh Tidiane Diagne. juróom-ñaar fukki téléphone ak juróom-ñaar la mu nekk ci biir salle bi nga xamante ne foofu la président jury bi nekk ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy surveiller examen bi lii nag ñu ngi ko nangoo ci ay candidats xamante ne dañoo bokkoon ci baccalauréat bi ñu ci bëri nag wàllug mbindum ndeyjoor bi la ñuy jàng maanaam ay élèves la yoo xamante ne arabisant la ñu ñu fekk leen ci ron garab yi ci centre d'examen bu nouveau lycée bu diwaanu Kaolack ñu am lool lu leen métti waaye tamit kanam yu triste jaaxle ba jàpp seen i bopp ñekke des sax seen rongoñ di tuuru. foo jógee. foo jógee. man maa ngi jóge ba ndar bu ndar te fii xaw ma ko borom vélo bu ma àndi moom moo ma ne. boo wàccee nga woo ma <laughs> ma jël sama téléphone bu fay ko dugal ko ci saag bi léegi moom mu ñëw mu ne ma. <laughs> yow koo xamante ne fekk ko muy sàcc da ngaa ñëw. <laughs> aywa. candidat yi nag ñu ngi ñuy la ci ana yan anam la ñu nangoo li nga xamante ne moom moo di seen i téléphone ba noppi génnee leen salle d'examen yi ne leen bokkatu leen ci examen baccalauréat bi Cheikh Camara di kenn ci ñoom. suñu téléphone dañuy ñëw fay ko dugg si biir saako denc ko léegi bu mu ñëwee nag après daal ku si am téléphone na nga génne ma la sa téléphone avant question la demee daal di bu yéemaane ndax bag bi dafa nekk loo xamante dafa métti nga nekk si mbir mi ba tey ji dégg nga ñu ñëw nangu sa ah, bag bi nii loolu dafa nekk loo xamante lu doy waar la ñu kan naqar lu baax a baax ñaan ñu xamante ne mu na si dara ñu jàppale ñu si mbir bu baax a baax a baax ay élèves yu bàyyeekoo ci dëkk dëkkaan ci biir Saloum bokk nañ ci waaye tamit am na ci ñoo xamante ne ñu ngi bàyyeekoo woon ci bitim réew ñëw fii ci Sénégal ngir jàng si ci candidat yi ñu nangoo ci ñoom téléphone ci la ñu bokk li ñuy xalaat nag mooy ana nan leen koy waxee seen waajur. man actuellement guinéen la man guinéen la damaa ñëw Kaolack fi mu jàng jàng école arabe treize ans presque te bi dal nañu métti na lool. xaw ma lan laay wax parents yi ñibbee parce boo waxee portable rek yaakaar na da nga doon sàcc. ba léegi mënumaa ñibbi bi sama lekk sama passe bi fu la nekk te man fu ma dëkk laa sori parce que côté bi ma dawoon laa dëkk. surveillant yi xamante ne sax ñoo nekkoon ci biir salle de classe yi lu ñu mel dalee na naqari ba tax na coow li bëri woon lool ci diggante président jury bi ak ñenn ci ñi nga xamante ne ñoo doon surveiller examen bi ba ci sax ndongo yi nga xamante ne bés bi rek la ñu yaakaaroon ngir defar seeni àdduna même surveillance bu mu ñëwee sax daf ne jox leen ma seen téléphone ñu ne ko téléphone yëpp mu ngi si saag moom daf ko bëggoon a jox dencal ñu ko waaye daf ne bàyyi leen ma bàyyi ko saag bi ndax su ma ko jëlee man président bi mën na ñëw yaakaar ne man dama nga xamante ne ne moom moo di jàmm naka noonu tamit bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom iya préfet ba ki sax ñenn ñi nga xamante ne ñoo yor wàll ka kaaraange gi jéem nañu jéem waaye ki nga xamante ne nag moo jiite jury bi dafa lànk ndaare mu jënteel ga ndongo yi li ñu doon sàkku moo di ñu jox leen seen i téléphone ñu yóbbu ko ndax seen i dund ci la nekk waaye sottiwul la mais tey jii nii nit am na yenn yoo xam ne bu ñu ko defoon sa doom wala ku la jege du la neex waroo bu bu diwaanu la jëf ji amee bu fekkente ne sax ñi ci ëpp la ci ay yoo xamante ne jàngum français mi la ñuy def mbir mi le guléet ñu koy gis ci capitalu Saloum ñu fàttali tamit ne ay candidats libres ci la ñu bokk. mu doon uh, mbir mu doy waar uh, Moustapha Badiane nag candidat la bokk nag ca ndongo yi nga xamante ne bii uh, dañ dañu leen dàq ne du ñu def nag examen bac boobule ca nouveau lycée nag bu kaw Kaolack mu ngay dikkaat nag ca anam ba ñu leen dàqe teg si itam nag ne leen dinañ toog ñeenti at yoo xamante ne bii du def bac ci biir réewum Sénégal kàddoom ti Tidiane Diagne moo ñu ko taataanal. man maa ngi dëkk Jalañ waaye maa ngi jógee ko village bu ñu naan Nguer bokk ci xamante ni dàq nañ leen tey jii ci jury ndax euh, dañoo ñëw ngir def examen mais dañoo ñëw daal fekk fi mbir mi nga xam ne mu doy waar la métti nañu ba fu métti yam ndax jooy nañ ba sonn waaye mënuñ ci dara parce que tey jii lu ñu nañu métti bi nga xamante ni wax dëgg yàlla te booy xool lycée bi nekk na lycée bi nga xamante ni kenn mënu koo te nekkut fi nga xamante maanaam mën ngaa ñëw rek dëkk fi ñun booy xool ñu ngi ci li nga xamante moo di suñuy téléphone ndax téléphone portable lañ professeur bu ñuy surveiller mu ñëw laajte ko ñu jox professeur bi jox ko mu bind suñ nañu génn leen lii daal moo fi jot a am te dégg naa ci nag ñu ne dañuy dàq dañuy li nga xamante mooy nga def terminal def bac admi ñu ñëw ñu dagal la ko fi nii nekk na la nga xamante lu ñu métti la trop wax dëgg yàlla métti nañu trop ba fi métti yam mënoon nañoo def lu ne nag mais jàq nañ tiit nañ aussi ba mënuñoo indi benn biir yu mënuñ ko indi ñu ngi toog di xaar di déglu gaay amul am ba noppi waaw am nañu jot a am ba noppi ndax génne nañ li nga xamante mooy matière bi ñuy wax philo falsafa ñu gën koo xam ci falsafa te nekk madda bi nga xamante ni coef personnes wala li ko ëpp loo xamante waaw wax dëgg yàlla ñun professeur bu ñu doon surveiller réagir na xuloo nag professeur kese daanaka professeurs yëpp wax dëgg yàlla te nekk na loo xamante ni gàllankoor bu métti la li ma ci gën a métti fa lu mat cinq personnes ak yeneen yeneen saal yoo xamante génne nañ fa ay nombre tey ngeen jàng 9 mois bés bii rek ngeen doon xaar situation bi demee nii. wax dëgg yàlla métti na trop bu ñu leen 9 mois danga naan 13 ans ngay wax ndax depuis CI ba léegi objectif bi nga amoon mooy lan mooy def bac def terminal am bac waaw boo nee 9 mois rek daay xaw a métti waaw gaa 9 mois yi nag maanaam pression bi ci la gën a métti ak yeneen ak yeneen ak yeneen doo am temps dara doo ko am sa xel daay dem ci li nga xamante ni moo di examen bi ñëw tey examen bi ñëw nii métti nañu trop wax dëgg yàlla Euh, dàq googule sax nag ki ko amal Ahmed Ndiaye lay wuyoo moom mooy président jury nag mille cinq cent six centre d' examen euh, nouveau lycée bu Kaolack euh, mu ngay xamle nag li tax mu dàq ndongo yooyu le ak ci ban sart la ko daal di teg ba dàq ndongoy ba nag du ñu daal di def bakk ci atum ren jile doom ci micro Cheikh Tidiane Diagne. maa ngi jugee université Dakar man maay président jury mille cinq cent six. donc am na quatre cent dix huit candidats yoo xamante ni deux dañuy def L prime 200 yi def euh, LR pour l'instant lépp mu ngi jaar yoon épreuve yi waaye ci commencement bi am na problème bu ndaw ndaxte candidat yi daa am ñoo xam dañoo ñëw indaale seen téléphone portable ci biir saal yi te téléphone portable comme ni ko ministre waxee ni ko directeur office du bac waxee téléphone portable warul dugg ci centre bi ñun ñu ñëw fekk ko ci salle bi donc ñu daal di li ñu yoon wax yoon li mu wax ci loolu mooy da ngay exclure candidat bi donc toll ñi sax am nañ ñaar ñett téléphones yu ñu indaale donc moo tax bi ñu xaymaa nombre téléphone bi mu nekk 77 téléphones déedéet loolu kay amul yaakaar parce que exclure mooy dàq nañ la léegi nag li ci des mooy ñoom après man sama wareef def naa ko après ñoom dañuy dem office di bag ñu xool commission discipline kañ lay waxtaan pour ñu jéggal leen wala ñu bàyyiwaat leen ñu def rattrapage wala beneen année ñu defaat bac. téléphone yi dinañ yu si gën a bëri ci seen saak la newoon téléphone yu si bëri gën a bëri ci seen saak lañ ko fekk. ñoom dañ jàpp ne mënoon waxtaan. waxtaan amul parce que ci seen convocation kenn ku ci nekk ci ginnaaw bind nañ ko ne la téléphone warul ñëw ci centre bi. ñu communiqué si njiit yi communiqué si directeur communique si wax communication bi nekk na ci olof nekk na ci français rajo yëpp teg ko wax parents yi ñu def ko donc fu mu toll nii jël nañ suñuy mesure voilà donc statistique boy mu ngi nekk 418 euh, candidats série L prime comme ni ma ko waxee léegi 218 la série LR ñu nekk 200 am naa ci L bi 6 yoo xam dañoo absent ci LR bi ma am ci 5 yu absent. bi da ngeen ko def euh, ci ñaata classe. téléphone yi ci ñaata bon ci salle yëpp salle bu ne dugg nañ fa. bon mënuma xamma sa nombre salle bi mais salle bu ne dugg nañ fa. Euh, ñu desandi sax nag ci examen yi gannaaw nag euh, ba ñu tàmbalee nag bac général ni ngi démb ci Sénégal yëpp nag euh, tax ba préfet bu Kaolack nag amal tukki nemmeeku ci département bu Kaolack ngir dem saytu ji nag centre d'examen yi ak itamit nag xool ndongo yi nu ñu toogee ak examen yooyu le nu ñu koy daal di tàmbalee ci diwaan bi tukki nemmeeku bi ci bakk ci diwaan bu Kaolack ak Alioune Badara Diop koy amalee at bu li nga xamante ni moo di tukki nemmeekum ci centre yi nga xamante ni nekk ci commune bu Kaolack ak département bi li ni moo di examen baccalauréat session 2024 ñu jàpp ne rek waxtu bi ñu toll moom lépp yem na ngir kàtta élèves yi mën a amal examen yoo xamante ni yu mucc ayib la doon monsieur Latir Ndiaye moom mi lee mooy préfet département bu Kaolack. ci ndigalu monsieur le gouverneur àndoon nañoo euh, inspecteur d'académie ak euh, yenn ci kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk njàngale mi pour niñ koy defee at mu jot ñu tolloo ci examen ñu dem ci yenn centre yi xool ndax li nga xam ne kilifa yi jëloon nañ ko comme mesure pour baccalauréat bi am ci jàmm ndax yooyu respecté nañ ko wala déet ci centre yi ñu jot gis nañu ne amul benn jafe-jafe donc euh, lépp loo xamante ne kilifa yi jëloon nañ ko pour mbir mi dox gis nañ ne respecté nañ ci centre ñu jaar te am nañ yaakaar baax aussi ne ci yeneen centre yi noonu dem demee kon dañuy gën a euh, attentif rek dama yaakaar ne fii ci région bu Kaolack euh, baccalauréat bi dina déroulé ci jàmm ak salaam bi doon IA kawlak Kaolack ndangaan dellusiwaat na ci lim bi nga xamante ni ñoom ñooy jongante lii di examen baccalauréat bu 2024 bi li toll ci fukk ak benn junni yu toftal juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom. kon euh, dañu am 38 centres si centre yooyu dañ si am ba 11 725 euh, candidats si candidats yooyu jigéen ñi ñoo si gën a bëre ñu ngi toll 6 414 euh, candidats Aliou góor yi ñu ngi toll 5 311 candidats si série tamit série scientifique yi yi ñoo gën a néew effectif parce que série S1 si boppam mu ngi am vingt huit candidats foofu vraiment situation boo xam ne bu doy waaru la année bu nekk euh, élèves yi ñuy def série S1 dañuy wàññeeku bëriwuñu alors euh, série S2 ñu ngi toll mille cinq cent quarante six candidats mooy treize virgule dix huit pour cent série L moo gën a bëre ay candidats mu ngi am euh, dix mille cent cinquante et am totalisé à peu près quatre vingt six point soixante seize pour cent kon loolu mooy suñu situation statistique. ginnaaw ay ndaje yoo xam def moo xam CRD wala sax CDD ñeel li nga xamante ni moo di examen baccalauréat bi ñu jëloon ci nag ay mesures yu takku moo xam wàllum téléphone portable yi ñu jàpp ne waxtu bi ñu moom ndongo yi moom respecté nañu ko lool. loolu ñu ngi ñaax candidat yi ñu gën a respecté consigne yu leen jox office du bac wax na si fan yi gouverneur ak nañu si comme quoi fii si centre yi si saal yi dañu tere utilisation portable surtout smartphone kon ñu ngi ñaax surveillant yi ñu def surveillance boo xam ne ci délégation bu takku bi nga xamante ni kii di préfet département bu Kaolack jiite na ko ñu nemmeeku ci tamit kuréel yi nga xamante ni ñoo yëngatu ci wàllum jàngal jàngale fii ci département bu Kaolack saytu woon nag yenn ci centre yi nga xamante ni ñoo nekk ci doon bi lii wante nag ba waxtu bi ñu toll moom amul leen loo xamante ni signalé nañ ko yoo xamante ni dina gàllankoor lii di examen baccalauréat bu 2024 bi lii Euh, Siaka euh, bi nag mooy IA bu Kaolack nag euh, moom bokkoon nag ci kilifa yi nga xam ne àndoon nañoo ko préfet ci lu jëm nag ci tukki bi nemmeeku boobule mu ngay dikkaat nag ci nemmeeku ba daal la ñu fa daal di jëlee ak nag ci sant d'examen yi daal ni ñu fekkee ndongo yi lépp jaar yoon nag nañu mën a déggee ci ay kàddoom ak tolluwaayu ndongo yooyu lee kàddoom Alioune Badara Diop moo ñu ko taataanal. après tournée bi bu ñu si mën a noter mooy orientation yoo xam ne autorité préfet ak gouverneur jël nañu ko dañu ko appliquer sur place euh, sécurité bi mu ngi si euh, dispositif organisationnel mu ngi si maanaam surveillant yi trois ñetti surveillant si salle bu nekk benn surveillant day nekk euh, surveillant responsable de salle moom mooy joxe instruction yi mooy joxe mooy leeral lu bëri élèves yi candidats yi suñu composé moo nekk interface jouer coordination entre surveillant surveillant yu si des si classe bi ak surveillant coordonnateur de surveillance gis nañu équipe yi yëpp fépp mu jàpp équipe yi ñu ngi si ñu ngi taxaw di liggéey waaw ci mooy surveillant day day doxantu si classe bi mu xool nekk vigilant nekk en alerte mu xool mu surveiller mu nekk euh, en vigilance permanente euh, ba fin processus bi alors euh, ñu ngi ñaar tamit collaboration boo xam ne moom la ñuy xaar si biir équipe yi maanaam président du jury chef de centre ak surveillant yi ñu am vraiment coordination bu rafet former équipe bu baax pour que examen bi ñu mën ko gere ci jàmm salaam si Gambie ñun fii Kaolack dañu am si suñu responsabilité benn lycée bu nekk Gambie mais lycée boobu tamit euh, consigne yoo xam ne dañu ko joxee fii Kaolack fii si Sénégal même consigne la ñuy appliqué foofu foofu lycée bu mag la parce que lycée boo xam ne euh, presque 17 nationalités 17 réew ñoo fay envoyé seen doom yi di jàng ay africains ay européens ay américains ay asiatiques ñoo fay jàng donc foofu am benn tiitante foofu parce que ambassadeur Sénégal Gambie moo xam ne moom représenté président de la république di représenté gouverneur ak préfet moom dina jël comme d'habitude dina jël motuwaay yëpp pour assurer sécurité ci centre boobu centre boo xam ne secondaire la dañu fay def épreuve yi mais ñu corriger ko fii Karang professeurs yi dañu leen di basé fii Karang mais centre boobu dafa rattaché aussi académie de Kaolack en tout cas ñu ngi souhaité bonne chance suñu candidat yi si fanweer ak juróom-ñetti centre yooyu am na fukki centre secondaire centre yoo xam ne kenn du fa corrigé comme Makakawan comme Gàccinaaw Dem Baraxun Kumbal yooyu ay Fass ay centre secondaire yoo xam ne kenn du fa corrigé dañ fa administré épreuve yi après ñu jëbal copie yi si yeneen centre yu ne centre principal foofu la ñuy corrigé yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM juróom-ñeent fukk yu toftal benn ci diwaan bu Kaolack nangaan xarala yees yi tax euh, ngeen koy teewloo ca biti réew ñu dem nag ca diwaan bu Ndar gi ca jëwriñ ji nga xam ne moom nañu dénk nag wàllum jàng ju kawe ji di docteur Abdourahmane Diouf nag ci doxub nemmeeku gi nga xam ne mu ngi koy amal nag ci daaroy kawe yi fayti nag ci biir réewum Sénégal euh, tëjee na ko nag ca daara joojule di UGB nag fayti ca diwaan bu Saint-Louis ba mu fa yegsee nag ndongo ya nañu ko teeroo mooy joytu ko ñàkkum ndox gi nga xam ne ñu ngi koy dund fu foofulee ca biir daara ja Ndar Géej ak Bara Diop ba ñu déggee ak dikkam ci diwaanu Ndar Géej boobi la askanu sànnaar daal di koy gàttandoo ay xott bidon wane ne amuñu ndox ñoo ngi file ci diwaanu Ndar Géej docteur Abdourahmane Diouf fu nekk jëwriñ gu ñu dénk njàng mu kawe mi ci réewum Sénégal amaloon tukki nemmeeku ci juróom-ñetti université publique yi nekk ci Sénégal wërngël këpp mu daal di tëjee ak tournéem ci UGB li mu fa fekk bu ñu sukkandikoo ci ay kaddoom ay jafe-jafe dong la assainissement jafe-jafe ndox li ñoom ñëpp bokk muy jafe-jafe budget bu doy. problème bu njëkk bi mooy problème mu budget problème mu budget mooy xaalis fii problème boo fi mën tudd nga ne amuñu ndox problème mu xaalis nga ne añ bi neexul problème mu xaalis la nga baaxul problème mu xaalis marché yi ren nag 2024 wax dëgg yàlla ñun dañ si fekk problème boo xam ne problème mu xaalis. li waral lu nu mel nag moom docteur Abdourahmane Diouf di ko faram fàcc. parce que tey université yëpp budget neuf mois la am te ñëpp xam ne at bi donc nit ki mënoo jox ko dépense bu mat ba pare topp ci gannaawam di ko exiger añ bu neex. ànd ak loolu moo ngi yaakaaral bu baax ñi nga xamante ne ñooy ndongo yi ne sànce yi muñ rek mooy li war ne fii ak ay weer yu néew rek li ëpp ci yi dina yem. dinañ fexe rek le problème boobu xam ne fii ak année bi di jeex dootuñu am problème problème budget boobu boo ko réglé waaye fii dafa am ay problème chantier chantier yi campus social bi mooy CROUS ak campus pédagogique bi mooy rectorat ñoom ñoo ko bokk fii dafa am problème mu étudiant dafa am problème salle de classe yu étudiants yi di jànge dafa am problème mu yi heureusement pare na dafa bari ay problème yoo xam ne ci ay chantier la yu ñu ba mu sori waaye pare nekk rek ab jëwrin goo xam ne jëwrinu ko rapport rek lay sukkandiku di liggéey waaye it jëwrinu ko terrain comme ni ko njiital réew mi président de la République Bassirou Diomaye sàkkoo ci ñoom dama ni man bëgguma doon ministre boo xam ne damay toog di lire ay rapport te rapport yi des fois li ciy nekk mën na baax mais des fois tam nga gis ci rapport yoo xam ne li nga ciy gis bokkul ak li ngay fekk ci terrain bi ma décidé nekk un ministre de terrain comme ni ñu ko président Diomaye Faye santé comme ni moom jëwrin gi daal na ci jafe-jafe yi gën a nga xam ne daara yu kawe yi nekk fii la ci réewum Sénégal ñoo ngi koy jànkuwanteel muy ay jàngalekat mu daal di xamle ne ren gi nas nañu jël lu toll ci junne ak juróomi téeméeri jàngalekat ci daara yu kawe yi tournéem googule moo ngi ànd ak ay autorités yi nekk ci diwaan bi étudiants yi recteur beek jàngalekat yi nekk ci daara yu kawe yi waaye it askanuk sànnaar daal di nañu koy gatandoo ngir yeggee ko seen ñëkk ñëq xol Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop yar sax nag ak teggin la gis nag ci kanamu ndongo yooyu le faytee nag ca daara ju kawe joojule di UGB nag faytee foofu le ca diwaan bu Saint-Louis gannaaw sax nag ba ñu ko jooytoo nag seen jafe-jafe waaye def ko it tamit nag ci dal moom docteur Abdourahmane juufa la ñu cay teewlu ci micro baax a Diop. yooyu ñu wax daal gëm naa ne bu ñu ko boolee ngeen am tuuti patient jàpp ko te vraiment maa leen ciy sant gis naa ne fii bari na nit coow li bari woon na mais bi ngeen décidé yéen surtout étudiant wax ak ministre wax ko seen ay problème gis naa ci yar gis naa ci teggin gis naa ci maturité loolu nag wax dëgg yàlla bettuma ci étudiant université Gaston Berger te ni ngeen ko waxee noonu ci teggin ak dignité ñun dinañ fexe ut dignité boobu pour régler leen seen problème te coow bi ci bari da ngeen di moytu grève xam nga ne ñu ngi def ay séminaire di stabiliser année on va chercher des milliards dugalaat ko pour rattraper retard bi waaye bu dee chaque fois bu ñuy rattraper retard nga ne yaa ngi grève te li xam nga ne solution boo xam ne mu ngi ñëw la ah, dama leen di ñaan bu boobaa grève yi nañ ko wàññ jàpp day mel ni yow yaay dóor sa bopp balu pistolet journée sans ticket bi day mel ni yaay dóor sa bopp balu ñu ne sa budget matul nga ne budget boobu matul moo tax añ bi neexul wala moo tax rang bi gudd ñu ne la maa ngi wuti xaalis pour ñëw régler problème boobu nga dem journée sans boo defee journée sans ñu perdre dix millions dix millions yooyu waroon ñëw ci yow mu ngay dem ca ba il faut qu'on apprenne à mutualiser il y a ici des étudiants d'économie qui pourraient très facilement vous expliquer sa bopp calendrier bu normal maanaam xamuñu kañ la école di tijji xamuñu kañ la école di tëj loolu chaque année Sénégal quarante la ciy perte waaw ngeen yaakaar ne quarante yooyu xajul ci restaurant ngeen yaakaar ne quarante yooyu mënul jënd problème ndox ak problème mu étudiant bi lu mu fi yàq en fait boppam la ko yàqal parce que par le principe de la mutualisation loolu ci moom la waroon ñëwaat te fàttaliku leen nag seen rakk yi nga xam ne ñu ngeen Euh, bàyyeekoo ca diwaan bu ndar géej nag teeri ji ca diwaan bu njaarim euh, CRD nag lañu doon amal nag ca diwaan ba lépp rek nag ngir waajal euh, màggalu Tuuba atum ju nekk ñaar fukk ak ñeent ci waxtaan nag ci yenn ci jafe-jafe yi nga xamante ne amoon nañu ko nigi ñi daaw nag ci màggal gi lu jëm nag ci wàllum ndox bëgg ca saafara nag laata màggalu ko ren jile CRD bi ak Mamadou Moustapha Mbaye CRD màggalu Tuuba 2024 ñu ko doon amal ci diwaanu Njaareem ay kàddu di wax ne jafe-jafe ndox yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci diwaanu Touba nguur gi dana si jëf ay jéego nu mu gën a gaawee. jamono yi ñëpp xam nañ ne jafe-jafe ndox mi aussi nag wàññeeku na duñ ne jeex na am nay poche yu des. waaye li nga xam ne moo ci nekk dañuy jël rek benn dispositif accompagner ko maanaam gunge ko ba jafe-jafe ndox yi suñu sañoon duñ ko dégg Touba waaye su amee nekk aussi mu nekk néew. loolu mooy ay camion citerne yi nga xam ne war nañ ko ci def sapeur pompier defoon na ko daaw dinañ ko daagaanaat ci ministère de l' intérieur mu jaarale ko ci général bi nga xam mooy BNSP pour que lañ defoon daaw ah ñu indiwaat ko mais nag teel koo indi ndax balaa dem beeg bi di indi jafe-jafe ko ci tiré ndax daaw dañu seetlu ne ndox mi ñu ngi ko doon tibe encore ci réseau interne bi maanaam forage bi nekkoon forage Darou te loolu mu ne di jafe-jafe ci distribution bi naam diggante bi état réalisé na projet transfert doo ndox mu neex jëla ko Sadio indi ko Mbàkke oo am na ñaari potence yoo xam ne ma nga fa war nañu mën a xalaat ne yenn camions yi Mbàkke Touba soriwul mais ñu mën a ñaan seen eau mu mettre à la disposition du comité potence yooyu su ko defee du am incidence si réseau interne bi nekk Touba loolu foog naa ci cadre concertation bi il faudra inviter la CNO ngeen xool ndox mu neex boobu nga xam ne état def na ko jële ko Sadji indi ko Mbàkke nan lañ ko mën a waxee aussi am contribution bu rëy ci biir màggal Touba bi loolu foog naa ne dina nekk point boo xam ne dina dimbale également askan Touba ci ravitamin. laata gouverneur Ibrahima Fall Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadre jotoon na yëkkatee kàddu di wax ne ndax ndaxte li nga xam ne moo jëm ci wàllu napp bi daal Cheikh Bass Abdoul Khadre mi ngi wax ne foo dem fu ne ndox maa ngay ball rawati fi nga xam ni boo féete ci wàllum jumaa ji jàpp daaru xuddoos ak li ko wër ba tax na kon muy sàkku ci nguur gi mu gaaw a séqi jéego lu ko may Touba ci boppam dana am ay jafe-jafe ci at yi nu ma moo dëgmal Mamadou Moustapha Mbaye tubaa Alfayda FM. Euh, ñu teeri nag ca diwaan bu ngara nag ndaje lañu amaloon euh, ci nag projet bii di cellal nag ñu ko doon defee foofule ca diwaan bu ko Sarekoli Sàlle la ko undu nag mooy waxtaan ak askan wi ak séddoo ko ñoom li nga xamante ne bii daal moo tukkee ci liggéey nag ci projet cellal bile ak itamit nag mbir yi nga xamante ne bii yokku na ca Babacar gay nag nañuy teewlu ay doom nag ci micro Babacar Diouf. ndaje bi nag li ko waraloon. du lenn lu depuis 2021 mi ngi nekk di intervenir fii si Vélingara département Vélingara yàlla dafa def ni dañu nekk si njeexital alors nag foo nekk nag pendant quatre ans dañu jàpp nii boo demee ba war a li gën a scientifique mooy nga mën a woo sa partenaire ya nga daan liggéeyal pour ngeen xool def euh, li ñuy wax mais ab natt natt boo xamante ni la ngeen joti liggéey di ngeen ko xool xayma ko xool ndax am ngeen fa ay expérience yoo xamante ni tey mën ngeen ko jël wéyale ko si yeneen diwaan maanaam tey bu fekkee ni tey dañu waroon am beneen cellal si beneen dëkk est-ce que tey lañu jotoo liggéey fii si département wu Vélingara mën nañ ko jël transposer ko foofu liggéeyee ko foofu donc tubaab di ko wax atelier de capitalisation en même temps aussi mu nekk aussi instrument boo xamante ne aussi instrument wu que ñun dinañu permettre aussi ñu am li tubaab di wax benn effet ñu mën a xam un sunu ay action donc loolu daal moom moo waraloon tey sunu ndaje bi fii si Vélingara parce que atelier de groupe bi déjà dafa répondre un peu philosophie projet bi parce que projet bi philosophie mooy renforcer alors travaux yi ñu doon def noonu rek dañu jël ñetti pàcc yi nga xamante dafa nekk ay pàcc yu fës ci wàllu projet bi mu jëm si li nga xamante ni mooy wàllu gouvernance bu ñu ne gouvernance mooy suñu cadre de concertation yi ñuy liggéeyal ko si nekk si département bi wàcc ba si cadre de concertation yi wàcc tamit ba si club Dimitra yi donc moo am liggéey boo xamante ni liggéey yu xayma la moom moo concerné gouvernance bi ba ñu si jógee aussi boo xamante ni aussi dafa nekk pàcc bu fës si projet bi mu jëm li ñuy wax les résistances aux antimicrobiens boobu aussi aussi nga xam ne day laal lépp lu jëm aussi si wàllu automédication lépp loo xamante ne dafa laal tey si circuit informel de distribution de médicaments humains et animal donc pàcc boobu aussi ñu daal di siy liggéey aussi ak ñoom ñetteelu pàcc bi nag moo jëmoon si li nga xamante ni moo jëm si wàllu li ñuy naan transition agroécologique loolu nag mu nekk pàcc bu am solo surtout fi nga xamante ni Vélingara dafa nekk zone boo xamante ni utilisation pesticide bëri donc nag pàcc boobu souvent li ñu siy jublu mooy jàngal nit ñi aussi ak yeneen alternative yoo xamante ni danañ ko mën a utiliser donc à la place des pesticides. yéen a ngi déglu yi ci Alfayda FM 90 point 1. Euh, dugg nañ ci ñaareelu xaaju xibaar bi ñu koy teeloo fépp ci diwaan bu siin Saalum euh, Bawol ba jàpp waalo ñu dem ca beneenub xibaar euh, gannaaw nag ba ñu amalee bac technique nag ba noppi résultat yi nga xamante ne bii ñoo ca daal di tukkee mucc ayib lool nag mbégte ma ca am nag bàyyi ko ci kuréel gi nga xam ne moo takkee nag waajur yu ndongo yi féetee fii ci diwaan bu Kaolack ci nag ni jàngalekat yi jàppale nag ndongo yooyu le taxawu leen ba ñu mën a am ndam nag ca examen boobule bac technique ci Kaolack bokkul ak ak soxna Ngoné ci xayma boo boolee ñaari wërngal yi ci ñaar téeméer ak fukk yi teewoon téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn jàll nañ maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak ñett yi jàll nañ. njurteef yu ni mel mu ngi tukkeekoo ci kàddu yu proviseur bu lycée El Hadji Abdoulaye Niass bi ci Kaolack gannaaw ba ñu amalee l'examen yi ba noppi ci lu néew ay jafe-jafe génn nañu nag ak ay résultats yu mucc ay yib ci bac technique bi ba tax na kuréel gi nga xamee région bu Kaolack bi ne ñoom mbégte la ñu am ci résultat yooyee ndax nag la gis romb na seen ak njort. waaw bu dee au niveau du bac technique on a plus que satisfaction maanaam am nañ lu wees sax suñ njort ndaxte bac d' enseignement général sa tourne autour de quarante huit pour cent mais ren jii buñ boolee ñi nga xam ne am nañ premier groupe ak ñu am deuxième groupe ñu def ko sous forme de pourcentage mën na ni lycée Ablaye Niass da am na dans les quatre vingt trois pour cent quatre vingt trois pour cent mooy buñ boolee ñi am d'office ak ñi am deuxième groupe. technique El Hadji Abdoulaye Niass bu Kaolack bi am na ko bu ñu sukkandikoo ci kàdduy Baara Gueye mi nga xamee ne mooy coordonnateur régional union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du UNAPES moom nag ma ngay xamle ne dara mayewu ko lu dul njàng mu mucc ay yip ak xereñ jàngale jàngalekat ya waaw résultat yooyu nag euh, li ko mën a maye d'abord mooy wax dëgg yàlla sur le plan bac technique Kaolack naka jekk dafa doonoon major ci Sénégal man de xam naa ne les dix ou douze dernières années les am ci Sénégal lis ñoo koy def ndaxte dafa am matière bu ñuy wax comptabilité boo xam ni jàngalekat yi fi nekk xarañ nañ ci lool te le plus souvent bu ñu Dakar les meilleures notes comptabilité sortent de du jury de lycée Ablaye Niass donc du loo xam ne lu bees la de lu fi yàgg la te loolu xam naa ne dañ ko yàgg def xam maîtriser xam nu ñu koy organiser moo tax résultat yi toujours di ñëw yoon woowee nga xamee ne jël nañu ko ci lii di bac technique bi ci ne at mu nekk nag ñuy gën a jéem seen kémb kàttan ngir at mu nekk ñuy gën a yéegal niveau bi Mbaar Faye nag nekk proviseur nag ca lycée El Hadj Abdoulaye Niass nag ci Kaolack ñëwaat na nag ci résultat yi tukkee ca bac technique boobule ak ñaata ndongo ñoo amal examen boobule ca lycée technique bu El Hadj Abdoulaye Niass kàddoom soxna Ngoné Ndiaye moo ñu ko taataanal. dama bëggoon dikkaat ci résultat yi li soxal lycée bi ci session 2024 may wax ne ci baccalauréat en sciences et techniques économiques et de gestion session 2024 lycée technique commercial Hadj Abdoulaye présenté woon nañ ñaar téeméer ak fukk ak ñetti candidat ñett yi nag ñëwuñu woon ci ñaar téeméer ak fukk yi teewoon ci wërngal bu njëkk bi téeméer ak ñaar jàlloon nañ ñu gën ci ràññee ñeent ñu am mention bien ak ñaar fukk ak ñeent ñu am mention assez bien juróom ñaar fukk ak juróom ñeent demoon nañ ñaareelu wërngal bi bi mu noppee juróom ñaar fukk ak ñeent jàll nañ ci xayma boo ñaari wërngal yi ci ñaar téeméer ak fukk yi teewoon téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn jàll nañ maanaam téeméer boo jël juróom-ñett fukk ak ñett yi jàll nañ boo ko gam-gamalee ak euh, li ñu amoon daaw tolloon ci téeméer bu ne juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett nga gis ne def nañ benn yokkute bu tolloog juróomi poñ ñu ciy sant yàlla bu baax a baax di ndokkeel ñëpp moo xam ñi doog a am bag la bi ci parents d'élèves yi jaar ci professeurs yi surveillants yi ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo yëngu ci njàng njàngale ñeneen ñi ñuy wax ne laj amul lii dañ ciy jànge te jàpp nañ ci ne bu beneenee ci lay dàq Euh, Bara Gueye nag mi président UNAPES nag ñëwaat na nag ci euh, kuréel gi nga xamante ne bii moo ëmb waajuru ndongo yi nag naka la waajalee bac bi ak itamit nag nan nañu dalalee ñi nga xamante ne bii ñoo di jury ba itamit nag gëstu centre d'examen yooyu lii ba gis na ne lépp mucc na ayib laata examen yi kàddoom soxna Ngoné Ndiaye moo ñu ko taataanal. xam nga l'organisation des examens fait l'objet d'une réunion interministérielle d'abord ensuite le ministre de l'éducation nationale et de la formation professionnelle également à leur niveau avec les syndicats des enseignants et les parents d'élèves au niveau national dinañ def daje. ensuite le ministre instruire les gouverneurs pour ñu def ay CRD pour préparer ces examens et les gouverneurs instruisent les préfets pour que ñu def ay CDD fànn yëpp ñun nag fi ñu ci agir c'est au niveau de la gouvernance defoon nañu benn CRD boo xam ni waxtaane nañu nan la ñuy organiser baccalauréat bi ah ci la ñuy waxoon effectif yi wax ñu jury yi wax ñu centre yi alors xalaat nag ñun parents d'élèves lan moo ci doon suñu wàll ci organisation organisation BAC boobu ah suñu wàll nag ñun ci organisation BAC bi parce que li ci des yëpp c'est technique organisation parents d'élèves bi mooy accueillir les jurys accueillir les examinateurs les présidents de jury surtout au niveau de la campagne du département parce que là vous savez il n'y d'hôtel pour qu'ils puissent trouver des chambres loolu mooy tax euh, il faut parents d'élèves bi organiser wu pour mën a accueillir ñooñu may leen fu nu fanaan jàppale leen it ba loo xam ne dinañ ko dundee muy lu nu lekk tamit ñu dimbale leen restauration bi loolu pare centre yi nga xam ne fii la ñuy defee setal ko bu baax nettoyer ko nettoyer toilettes participer ci numérotation tablement yi loolu daal moo doon li nga xam ne moo doon wàllu parent d'élèves bi tey jii def nañ déjà visite mais avant loolu bac technique bi tamit defoon nañu visite des centres des instructions ont été données par le ministre d'abord sur le plan organisationnel ndax désormais c'est trois surveillants par salle de classe parmi ces trois surveillants il a un surveillant coordonnateur qui donc a a la ñuy dem di acheminer les copies après donc loolu yëpp c'est pour permettre une surveillance stricte pour que vraiment élève bu ne mën a bénéficier de sa chance on a parlé également des portables qui sont source de fraude alors là aussi il des visites qui sont faites avant la rentrée des élèves dans les salles pour que bu ko defee ñu xool ba xam ku loolu waaye au niveau de la région Bactine bi yëpp dispositif bu ñu tegoon mooy surveillant yi président de jury bi accueil bi parents d'élèves yi les élèves également sont venus à l'heure pour ñu def seen examen ci Alfayda FM 90 point ñu dem ca beneen xibaar lu jëm nag ci wàllum cinéma nag mu ndar meelu lool nag fii eh, ci diwaan bu Kaolack donte sax nag am na ay at yu weesu ci gannaaw doonoon na mbir yoo xamante ne bii dañu ko daan eh, gis lu baree bari waaye tamit nag jamono ji ñu nekk doon na loo xamante ne bii gisatuñu ko eh, mbir mi am solo la nag ndax it tamit nag seetaanub film jàngee ca doon mbir moo xamante ne bii day gën a yokku xam-xam lu jëm nag ci wàllum cinéma ci diwaan bu Kaolack ak Ndeye Fatou Cissé. doo dégg fenn benn salle cinéma Kaolack alors que loolu du yoon. nekk xale bu góor bu am taxawaay Mamadou Sinu Dia. 25 ans benn la ci ndaw yi nga xam ne Kaolack la ñu juddoo màggee fii waaye nag mësuñu teg seenu tànk ci ab salle de cinéma dégg kese lañu ci am. no non non non dama ko dégg rek dégg rek fii laay dégg ay cinéma ABC cinéma ma xamatuma sax fan mooy cinéma ABC juste parce que damay dégg rek fii la féetoo wala fee. wàllum cinéma Kaolack des ci ginnaaw loola ndaw yi ci yëngatu ne tey euh, seen combat la. waaw soobu nañ si bu baax moom incha allah bëgg nañ tamit cinéma Kaolack kam nu ma déggee bu njëkk ba nekk sax man voilà di gën a pour Kaolack delluwaat si wàllu milieu cinéma bi loolu moom bëgg nañ ko trop trop da ngay si yeneen région yi gis ñoo xamante ne Kaolack lañ ne woon mais pourquoi pas mënuñoo si pour mën a représenté Kaolack wala yenn autorités yi nekk fii ñu tijjiwaat yenn salle xam nga cinéma yi fii nii quoi pour yenn jeunes yi nga xam ne bëgg nañ yenn activités yi si si wàllum cinéma bi wala région yi ñu nekk fii Kaolack voilà ñu mun ko defaat fii moom loolu moom bëgg nañ ko bu baax a baax a baax sama genre ñu si bëri dañuy def yenn formation si région yi foofu la gën a mun a développer suñu kii te bëggoon nañ koo def fu loo xam ne wàllum Kaolack la nekk foo xam ne activité yëpp ñu defee ko biir Kaolack salle cinéma yi ñu tijjiwaat ko quoi waaw vraiment salle cinéma Kaolack moom amatu man gisatuma sax fenn foo xamante ne nee soo war a projeté film fii nga ko war a def amul Kaolack juste ay centre culturel te fii amul salle boo xamante ne mën nga fay def wàllum cinéma développé wu fi noonu franchement parce que gisuñu ñu si jàppale bu baax a baax États-Unis ak yenn gars yi jugee si yeneen régions yi wala si yeneen pays pour ñëw fii mais pour toog fii gis ay yenn formation si Kaolack ni moom c'est rare par rapport ak yeneen régions yi ko kaddu yi la nag Mamadou Sénou Dia. nekk di wàllum réalisation si wàllum cinéma. mi ngi ko doon yëkkati ca centre culturel régional bu Kaolack euh, ci ab atelier de formation ñeel lii di cinéma ña leen doon baaxee xam-xam ak i ya euh, jëmale kon euh, ci lii di cinéma di ay acteurs ak i réalisateurs yoo xam ne nag ña nga jóge woon tugal. mun yenn formation yi am ci yenn région yi soo fa gisee koo xam ne Kaolack la nekk dangay ngay gis que ne kii am na talent vraiment am na talent mais pourquoi pas talent yooyu noonu mën na ko exploiter ci dëkkam quoi biir Kaolack fii nii. xabaar yi bitim réew. xibaaru biti réew yi Alioune Badara Diop maa ngi lay dalal. maa ngi lay ziar bu baax a baax soxna Mariama xibaaru bitim réew yi nag des koy doore nag ci réew Mauritanie ginnaaw élection présidentielle yi nga xam jot nañ ko amal nag waxtu bi ñu toll nag mën nañu wax ne ni moo di président sortant toll moom moo doonaat njiitu réew bu foofu ci réewu Mauritanie ginnaaw bi nga xamante ne fal nañ ko ci li toll ko cinquante six virgule douze pour cent ci liggéey bu am solo bi nga xamante ne commission électorale nationale indépendante di CENI jot nañ ko def nag jot nañ fësal xibaar yi ni mel ginnaaw ci loolu nag ki nga xam moo di Birahim daa abed moom mi ne nag jamono toll moom nangul benn yoon résultat yi nga xam moo duppee ci élection présidentielle yi nga xam mu ngi amoon foofu ca réew bu Mauritanie jàpp ne waxtu bi toll moom war nañu defaat ab saytu ngir kat xoolaat a baax moo duppee ci élection yooyu leen ndax di jàpp ne waxtu bi toll moom ay fraude moom am na ci résultat yi nga xamante moo am foofu ci réew Mauritanie xabaar yi bitim réew ñu ci réew bu Haïti wax ci nag lu tolloog nag ñetti téeméer xam ne ay ndaw la ñu waxtu bi toll nag mën nañ doon génn foofu ci réew bu Haïti lépp na bokk na ci nag ñàkkum ci na jamono toll a xool na mën a def ndaw ñi nga xamante ñu ngi jànkoonte ay jafe-jafe yu métti ci noonu tamit jot nañ nemeeku lu tolloog juróom-benn téeméeri junni ci ay doomu aadama yoo xamante daw nañ tamit jógee seen dëkkuwaay lenn waralu ko nag lu dul bi nga xamante ñu koy faral di gis ginnaaw bi nga xam ne jot nañ nemeeku nag tamit ay yenn mbir yoo xamante nag moom doon jëfu nit loolu war a jamono toll na ñoom milee daw nañ làqatu ji seeneen réew yi ngir kër mën a mucc ci fitna ji ni mel. xabaar yi bitim réew. ñu dem ci réew bu RDC Congo wax ci nag li nga xamante ni procès bi nga xam moo ñeel nag juróom fukk ak benn yi nga xamante ni dañ leen a tuumaloon ci wàllum tentative de coup d'état bi nga xamante mu ngi doon bëgg a am foofu ci réew bu RDC Congo procès bi ni mel na ñu door ko léegi nii juróom ñaari fan ci weeru juin bi ñu génn waxtu bi ñu toll nag ñoom milee seen ëllëg des na ko ki fan ci fàttali nag mbir mu ngi amoon ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai bi ñu génn foofu ca Kinshasa coup d'état bi ni mel nag mujjuta ñoo ko mujj dogaale xabaar yi bitim réew ñu jeexale xibaar bitim réew ak ki nga xam moo di Victor Orban moom mi la nag di élimaanu jëwriñ foofu ca réew bu Hongrie moom la amal na ab tukki ne meeko na foofu ca réew Ukraine lépp na bokk na ci nag addu ci situation bi nga xamante mu ngi am jamono ju toll foofu ci réew Ukraine rawatina jafe-jafe yi nga xamante ni réew bu Russie mu ngi koy jànkonteel ci fitna ji am ci diggante réew bu Russie ak réew Ukraine ginnaaw ci loolu nag moom mi nga xam moo di Volodymyr Zelensky di njiitu réew bu Ukraine bëgg-bëggam tamit bokk na ci tamit ñu àddu ci li nga xam moo di wàllum cessez-le-feu maanaam mën a dikkaat foofu ci réew bu Ukraine jamono toll nag mën nañu wax ne nag tukki nemmeeku bi nga xamante ni kii di Elimaanu jëwriñ bu réew bu Hongrie te moo koy amal foofu ci réew bu Ukraine li ci gën a fas mën a jàpp nag wàllum jàmm ju dikkaat foofu ci réew bu Ukraine mooy doon li a soxal la gërëm la bu baax a baax soxna Mariama fii la yem ci xibaar bitim yi am jàmm te ku mu jàmmal jàmm yàlla ñu may jàmm jaa jëf ñu jaajëfal ko bu baax a baax moom alin ba dara Diop ñu desandi ba léegi rek ci euh, lu jëm nag ci wàllum bitim réew xibaaru bitim réew yooyu la euh, li nga xam ne moo di ji nag ak jafe ci wàllum politique nag jamono jilee mu nga ca biir réew Mauritanie euh, ki nga xam ne moo di jëwriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk nag wàllum biir réew ma mu ngay ne sax ne ñetti doomi aadama daal nañuy faatu ci jafe-jafe ak yëngatu-yëngatu politique boobu lee nga xam ne ñu nga koy nemmeeku ca biir réewum Mauritanie ñu dem ak bàkku xibaaru tàggat yaram yi xibaaru tàggat yaram xibaaru tàggat yaram yi Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Mariama Ba maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak euh, euro 2024 bi programme mu quart de finale yi nag ni lay tëddee ci àjjuma ji bu ñeenti waxtu jotee Espagne dina laale ak Allemagne bu juróom-ñaari waxtu jotee Portugal di laale ak France samedi bu ñeenti waxtu jotee Angleterre di laale ak Suisse bu juróom-ñaari waxtu jotee Pays-Bas di laale ak euh, Turquie équipe nationale bu jigéen ñi bu Sénégal mi ngi waajal ñaari jogante xarito seen diggante ak RD Congo ci weeru sulet bi ñu nekk ci diggante fukki fan ak ñaar ba fukki fan ak juróom-benn ci weeru sulet bu juróomi waxtu jotee ma ngay amee nag ca stade Lat Dior ba ca Thiès. ñu waxtaanee ak euh, programme final coupe du Sénégal yi nga xamante ni jàpp nañu ko bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi tukkeekoo ci jiitu fédération sénégalaise bu football ak club yi nga xam ñoo àgg ca boobule final alarba fukki fan ci weeru sulet ca Diagali Bakayoko. daañu amal final cadet bi ci diggante génération foot ak Kër Samba te yi ba léegi foofu ca Bakayoko final junior bi daañu ko amal bu juróomi waxtu jotee ci ngoon gi Pegasus mooy laale ak euh, Jaraaf samedi fukki fan ak ñett ci weeru sulet bu juróomi waxtu jote ca stade Maître ay Wade final senior bi lay doon ci góor ñi AS Firi mooy laale ak euh, Mbour Petite Côte mercato ci suñu gaynde yi FC Bat bu Borisov nag euh, wax na ni nag kii di Sidi Ban défenseur international sénégalais ñaar fukkat benn bi dina xaatim ak contrat ci ak euh, RC Lens ci euh, waxtu yi ñu jëm ci lu yàggatul euh, dara kii di Papa Abou Cissé moom nag day delluwaat ca Grèce ginnaaw bi nga xamante ni contrat am jeex na tàkk ak ñi di waa Arena du Sport Pa Abou Cissé nag dina xaatim ak contrat ak AEK Athènes ci ñeenti at yi ñu jëm. ñu dem ca Mali foofu tamit euh, football ba moom yëngu na fa bu baax a baax ginnaaw bi nga xamante ni fan yee weesu joueurs équipe nationale yu Mali nag dañoo waxoon dañuy boycotté équipe euh, nationale bi ngir résultat yu bon ak gestion bu bon bon boo xamante ni seen euh, kilifa yi amoon nañ ko jëm ci équipe nationale bi ndax fu mu toll nii seen coupe du monde sax ci qualification yi ay résultats yu bon rek lañ ci jëlee ba tax na fédération bi jël na ab ndogal ne day taxali ko ak seen entraîneur bi ginnaaw bi nag ba joueurs jëlee ndogal boobu nag seen capitaine Amari après démb fédération bi bi ñu waxtaanee dañoo jël ab dogal ne dañu koy ajagum ci mboolem compétition yu jëm ci euh, équipe nationale football foofu ca réew ma ca biir euh, Mali ñi ngi xaaral ni nag euh, commission discipline bi daal di daje xool ndax boobulee dogal dañu koy dëggal am déet basketball final eight bi national 1 ci jigéen ñi AS bopp moom ginnaaw bi nga xamante ne ni qualifié na jëm ci final foo bi moom nag am na ndam ci kanamu euh, Guédiawaye Basket Academy 62 57 bu dee ci góor ñi nag Jeanne d'Arc bu Dakar bi nga xam ni moom it qualifié woon na jëm ci euh, final foo bi moom nag euh, jeexal na ko ak digganteem ak US ak ndam 63 58. jeexalee ko ak athlétisme ak xibaar bu neex bi championnat d'Afrique bi ci wàllu 400 mètres yi yàggul dara foofu ca Cameroun ca kii di Cheikh Tidiane Diouf euh, nag da doon xaar nag yeneen euh, chrono yi ngir xam ndax day bokk ci li nga xam te ni moom mooy Jeux olympiques Paris 2024 démb nag la ndogal bi génn sprinter bi nag daal dinay mujj qualifié ci ginnaaw bi nga xamante ni euh, jël na fanweeri place beeg ñeent ci classement mondial bi bi ñu ko defee ak ñii di waa World Athletics ak Mariama Ba li mu gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram yi ci kaay yi kaay L'Obs, Le Soleil, Sud li ci yéenekaay yi ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé lan bikum carna bookum dugg na attaqué na Ousmane Sonko yàkk ko kàddu yoo xam ne weñ wu ci dal fa ngay dee info yéen a kaay ñu ko xamal ñetti weer biñ jëlee nguur gi ak léegi waaye na bokkum daal fa ñaawlu doxale ni Ousmane Sonko yéen kaay bi fa njëkk xam la ne temps biñ leen mayoon Sonko ak Jomaay ngir ñu organiser wu fi mu toll ni jeex na comportement premier ministre bi nag Ousmane Sonko fa koo ñaawlu ne Sonko daal respecté wut institution réew mi te respecté wut tamit sénégalais yi waaye faa koy xamal leen moom Ousmane Sonko bés bu defee déclaration politique générale foo xam ne nekkul assemblée nationale na ko wóor na bés ni ki dootu nekkati premier ministre bu Sénégal te moom Ousmane Sonko ñu ngi koy xaar mu wax action gouvernement bi mu bàyyi ko fi moom di def ay action yoo xam ne ay dem grand théâtre di fa concurrencer waal yi ak yi ci maa leen ëpp mbooloo di def ay show ca Colobane ko ci moom Bassirou Diomaye Faye nag président fa war a assumer Sénégal moom lañ fal kenn falut Ousmane Sonko wala book su ko mënut mu assumer nangu ne moom kon président la boo xam ne fañ ko toftal ci wetu ab premier ministre ba tax man car na bokkum faay xoo mboolam ku jégi opposant yi ñu dajaloo nekk benn ngir wote yi di ñëw wote député yi ñu jël ndam li mën a jàkkaarloo ak nguur gi ndax ab réew na fa war a soxla ay opposant contre pouvoir ñu ne dee tewaay car na bokkum nee na ñi nga xam ne fa ñoo tabax ñu ne ci pegg géej gi jomaa ak sonko di ko aaye faalan di ñaar na leen nañ lijjanti seen xarit boobu nga xam ne moom moom hôtel bi ñuy wax azalaay yow hôtel bi sept mille mètres carrés naka lañ ko mën a tabaxee ci foofu yëf yi naka la demee faw ñu lijjanti ko critique yéen kaay mel ni ko koy tontu na Thierno Bocoum wax nga ba pare xam nga ko gémmañam dinaa ci moom du wax jàmm waaye gis nga Ousmane Sonko mii mooy premier ministre boo xam ne fa jege askanam maanaam fay dem si ñoom bokk si ñi nga xam ne boo leen falee dootoo leen gisati problème bu ñu am mu ñëw déglu leen di leen wax dëgg taxaw ngir jubbanti Sénégal tappale yi moom ci lii la nekk yow ngay wax lan l'observateur na ko en daal téeméeri fan a fës docteur Arona Coumba nii yoon wu ñu xaw yoon wu baax la ñu ngi jubbanti réewum Sénégal la woon woon nekku premier ministre nag Ousmane Sonko am na sañ-sañ ne du dem assemblée nationale def déclaration politique générale ndax règlement intérieur ba fañ ko war a soppi te faa leen di wax leen gis ngeen jomaay ak Sonko mii buñ seetaane Macky Sall jàppuñ ko andi ko ci réew mi atte ko na leen wóor ne fa ñuy war askan wi ndax Macky li mu def ci réew mi fa jéggi dayoo kenn waru ko b noonu bor bi mu ñu bàyyee réew mi moom kenn xamu kañ leen koy fay toll nii ña ngay nas ay pexe ngir fexe ba président jomaay fay du a tas assemblée ko wax ba pare di leen artu Ismaïla Diallo nekk député ci assemblée nationale ne faa di wax leen gis ngeen cool assemblée nationale lii lenn rek moo ko mën a régler mooy président Diomaye Faye jël dogal tas assemblée nationale te léegi yoon may na ko ko ndax keroog bi député benn bokk yaakaar taxawee ne duñ def débat orientation budgétaire loolu rek motif la mën naa tax président jël dogal tas assemblée ndax ñoom loolu ñu def du yoon ma <laughs> a ak procureur yu bëri fañ leen a nar a jëlee seen place remplacé leen ak yeneen attekat yoo xam ne fa ñëw ngir topp ñu sàcc alalu réew mi turbine yéen kaay ne Bassirou Diomaye Faye est dana dem ba mu sës ci yëf yi jëwriñ ji ñu dénk wàllu biir réew mi Jean Baptiste Tine fa tontu maire bu Colobane xam nga circulaire bi wax ne ministre de l'intérieur moo ko génnee ngir santaane toxal gi ñu toxal yenn yi nee na circulaire boobu maire bu Colobane bokkut ci woon toog laal ci tali yi nga xam ne fi la oto yi war a jaar ci biir marché yi fañ ko fiy jëlee ak fu mën a doon nag critique yéen a kaay na man koy fay laajte kan moo bale ba mu set jàmbaar yooyu nga xam ne ñooy marchand ambulant yi réew mi yéen a kaay moom fa ñoo xamal na Fadilou Keita fay lukkat ma ngay kër gëm jiite di CDC seen xalaal jaak tappaleek lépp lu fa mën a xam waa IGE yi ña ngi koy lañ bët wala fa jiri yéen a kaay fa ñoo xamal emploi xëyu ndaw ñi liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la mën a def ci jëlee fi ñàkk liggéey surtout boo ko jaaree ci wàllu mbay artisanat ak yeneen yi ni mel enquête yéen a kaay na ko réewum Sénégal nag yarum ganaar fa mel daal fañ cee deltu ginnaaw ki narta seetaan RTS muy deltu ginnaaw du kenn ku ma njiit la Pape Alé Niang moo tax fa jël ay dogal soppi doxalinu RTS pasar pasaree xalalu askan wi salaire yi du xaaj du jeex xalal ju ñu caxat-caxatee nga xam ne Racine Talla loolu la fa nekkee woon Pape Alé fa ko dakkal ba tax fi mu toll nii nag liggéeykat ya fa ñoo ni fa ñoo jëfur de lii yéene kaay na ginnaaw liggéeykat ya waa CSE ñoom itamit ña nga ca kaw Pape na li ci garaaw nag mooy démb journalu vingt heures bi RTS amul vingt heures Pape a amu démb danaa ci jël ay matuwaay teg daan yi ci war baneen bi ci topp mooy dogal bi ma jël ngir alalu RTS bi ñu doon pasar pasar ci anam gu jaar yoon mu dakk du ci deltu ginnaaw faay jël sama responsabilité liggéeykat yeeg kum neex am nga sañ sa ñaxtu wala nga ne lii d'accorduma ci waaye lu dul yoon moom jeex na dootu amati RTS maa ñoom nag ba géej gi def walaat fañ maa xamut laa yaakaar du deltu ginnaaw de bés bi yéene moom fa xëy di àddu leneen 24 heures yéen moom fa ñoo xamal na Cheikh Bamba Dièye njiital AIBD ma ngay andi ay coppite de ca kër ga ñu ko dénk si du quotidien moom fa ñoo xamal ne suñ maam yi boom ray gu ñaaw gañ leen rayoon ca caaroy atum 1944 tirailleurs yi ginnaaw bu ñu demee xeexal tubaab yi français yi jàppale leen au lieu tubaab yi gërëm leen def la war ca ñoom déedéet fañ leen a rayoon fàttaliku googu nag ñu koy fàttaliku ren mooy juróom-ñetteel fukkeel bi waaye ca bees ah, yow seetal mbiru jaay ñaari immeuble yu impliqué Tahirou Sarr ak Banque Atlantique l'évidence yéen a kaay mag ñuy nettali la bees ca yëf ya ba tey l'évidence yéen a kaay fa ñoo xamal na ajug màkk ak neexut ba neex waaye El Malick fa cee xam ndam moo équipe am bañ àndal loolu baax na li baaxut nag mooy la dal ay élèves yoo xam ne fañ doon def examen baccalauréat ca diwaanu Kaolack ndangaan ah, yow seetal 64 juróom benn fukk ak ñeent ci ay kandidaa baccalauréat fañ leen a génnee ca classe ya na leen dootu leen def def yéen bokkatu leen ndax fa ngeen a andiwaale téléphone portable ci seen biir saag yi te loolu fañ koy xaayee Dakar presse yéen a kaay na yëf yaa nga amee ca nouveau lycée bu Kaolack jury ay arabisant lañ président jury bi ci libération ne communiqué ministre bi ñun moom lañ jëfee kenn ca candidat yooyu ñu génnee ci bés bi yéen kaay fa wax ne ñun fañ ñoo sacrifié ndax téléphone yi defuñ ko suñ poos taxaluñ ko te booba examen bi tàmbaleegut lañ ko bàyyi la maa leen yërëm ndax waajal examen baccalauréat ni méttee xatum lëmm ngay jàng bay bëgg a dee bés bi nga dem pour toog ngir def examen ñu ne la génnal bokkoo ndax téléphone fa nga koo àndi te fañ ko xaayee amul lu ko gën a métti yaakaar gu tas waaye fay laajte mënuñ leen a baxal octobre bi di ñëw ñu def examen mbokk yi lii ñoo fi rusé woon ci ay xibaar Alfayda FM xibaar yi ma feggoo woon ci ak code sec keneme ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñi doon teewlu xibaar yi kàddu gi doon bàyyi ko si studio Medina Baye ñuy ñaan rekk yàlla muy borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm yàlla ñu yàlla may jàmm fu ñu toog di dégg jàmm di gis jàmm mbokki cant ak ngërëm ñeel na leen woy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM jërë ngeen jëf. xibaar yi ak Mariama Ba.